ci weeru koor gi la ñu daan organiser ay conférence nga xam ni ay bâche la ñu daan tonte ci koñ yi waaye mu mel ni ren nag yëf yi dafa daal di soppi ak contexte politique bi. Sénégal moom politique moom ni fi demee violence bi daf ci xaw ëpp doole te dajale ay nit comme ñun ñu koy defee nii ci Sénégal nga xam ne bu doon ci dëkk européen yi dañuy dem ci ay salle. yoo xam ne da ngay isolé wu doo ñëw ci mbedd mi euh, def sa confrance et puis dina foofu dina am sécurité mais loo xam ne moom base yoo xam ne ci mbedd nga koy def politiciens yi di campagne romb foofu te mbooloo mi doo xam ku ci bokk ak ku ci bokkul. ak contexte campagne électorale yi nak tax na ba imam yi ak oustaz yi ak gisuñu ci seen bopp. boo xoolee am nañu suñu activité yu bëri yu ñu changé am na bu doon am le 24 da nga yóbbu le 17. am na ñu am le 24 dañ ko supprimer parce que le 24 mooy élection yi donc impacté na donc dimanche bi dimanche bi programme bi nu com bi nu jàpp woon euh, que dimanche naturel la ci biir ramadan bi dimanche boobu yëpp kenn def ci conférence alors c'est déjà prévu samedi bi aussi veille élection la nit ñi voyager voilà donc un week-end am nga quatre week-end mais week-end moom impacté na donc kon naturellement euh, dina impact ñi nga xamante ni dañ ciy seen dara waroon ci jot benn trois cent mille wala quatre cent mille ñu leen daa am élection peut-être ñoom euh, dañ dinañ impacté. ci noonee ak kii di oustaz Socé ak imam Pouy nag daal di nañ xamle ni que euh, organiser wu ñu ay conférence ngir am ci dara. mais conférencier boo xam ne yow xalaatoo lu dul ñu ne la. conférence bi gannaaw suba la nga ñëw jaagar jaagar yi def sa poos dem di ko dundalee sa njaboot kooku xamuloo sa rôle. am na ustaas yoo xam ne ñoom it dañuy soxla dara et c'est c'est très normal ah ku bàyyi activité yëpp ñëw dara defal conférence activité la service bu mu lay rendre la un service mérite n'est-ce pas euh, day am honoraire wala day am salaire mais am na ñoo xamante ne par principe duñu fixé maanaam mënuma mosuma fàttaliku nga ooma imam bi ne ko dama bëgg conférence ñaata la mën la non bu dee yow lii non mosul am. ñi di association islamique yi nag ñoom la ñu daan faral di gis ñuy organiser ay conférence ci weeru koor gi mu mel ni ñi ko daan organiser dañuy ndégganiku filig élection yi di jàll